الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أين نحن من تعاليم الإسلام يقول الإمام البناء إن الله بعث لكم إماما وودع لكم نزاما وفصل أحكاما وأنزل كتابا وأحل حلالا وحرم حراما وأرشدكم إلى ما فيه خيركم وسعادتكم وحداكم سواء السبيل فهل اتبعتم إمامه واحترمتم نزامه وأنفذتم أحكامه وقدستم كتابه وأهللتم حلاله وحرمتم حرامه كونوا صرها في الجواب أيها الإخوة وسترون الحقيقة وادها أمامكم بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala laaj bi ñu war a laaj sunu bopp tey mooy ayna nahnu min taalimil islaam mooy ñun julliti tey fan lanu toll ci njàngale diiney lislaam ayna nahnu min taalimil islam ndeke diine lislaam dafa ñëw pour ñu jàng ko pour ñu xam ko waaye pour nu dund ko waaye njàngale yooyu ndax jàng nañ ko xam googu ñu ko war a xam ndax xam nañ ko waaye mbokk jullit yi dund googu ñu ko war a dund ci dëgg-dëgg ndax tey dund nañ lislaam ci kaw suuf al imaamul banna kenn la ci boroom xam-xam yi dégg lislaam nee na yàlla subhaanahu wa taala su ngeen bëggee xam ndax dund ngeen diine mu ne lii ma leen di wax xool leen fan ngeen ci toll su ngeen yii su leeree ci seen bopp rek di ngeen xam ne yéen a ngi ci lislaam wala nekku leen ci lislaam mu ne inna allaha baasa lakum imaaman yàlla moo leen yónnee woon njiit bu tudd sayduna muhammad mu nekk seen imaam mu ne seen diggante ak njiit boobu fan ngeen ci toll lan ngeen ci def ndax xam ngeen kan mooy muhammad ndax imaam boobu yàlla tegoon seen kanam yàlla waxoon leen jël leen lépp lu mu leen indil lu mu leen tere bàyyi leen est-ce que mbokk yi dëgg-dëgg imaam boobu nangu nañu mu nekk sunu njiit imaam boobu yàlla waxoon nu nu roy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ndax dëgg-dëgg ñun jullit ñépp roy nañ imaam boobu wa wadaa lakum nizaaman yàlla moo leen tëralaloon aw tëralin yàlla moo leen indil aw doxalin yàlla moo leen indil aw dundin ndax tëralin woowu yàlla tëraloon ndax jaar nañ ci ndax doxalin boobu yàlla bëggoon ñu doxal ndax moom la ñuy doxale tey ci kaw suuf waaye mbokk yi dundin woowu yàlla bëggoon nu dund est-ce que moom la ñuy dund tey wa fassala ahkaaman yàlla moonu leeraloon ay atte indil nu ay atte ne atte yi laa bëgg ngeen atte woo lépp lu mën a xew ci kaw suuf ci seen dundin yàlla mu ne qad fassalna al ayat aaya yépp laa leeral amul lenn lu ngeen di soxlawo ci seen dund lu dul man yàlla leeralal naa leen ko mbokk yi laaj bi mooy ndax atte yooyu yàlla waxoon nan ko atte woo ndax moom la ñuy atte woo tey wa anzala kitaaban yàlla moo wàcce ci ñun téere téere bu tudd quraanul karim mu nañu ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum topp leen li yàlla wàcce mu jóge ci seen boroom mu ne moom yàlla kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaasa min azulumat ila nuur téere la boo xam ne man yàlla maa ko wàcce ci yow muhammad alayhi salaatu wasalaam ndax nga génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer téere boobu mbokk yi fan lañ ci tollu tey ñun julliti wa ahalla halaalan yàlla nee na maa daganal ci yéen ay mbir ne lii mooy li dagan ndax loolu yàlla ne moo dagan ci ñun ci la ñu yem wala am na ay yeneen mbir yu ñu yóotu daganal ko sunu bopp te yàlla teraloo ñu ko yàlla yemul rek ci daganal ci ñun ay mbir waaye wa harrama haraman yàlla ne ma araamal ci yéen ay mbir ma ni leen bu ko kenn jege ginnaaw ba ma daganalee ay mbir dama araamal ay mbir ndax mbir yooyu ma araamal man yàlla ndax ñun jaam ñi loolu yàlla araamal araamal nan ko tey ci kaw suuf nan xool sunu bopp ci yi boroom xam-xam bu mag bii di ñu wax naan ñu xool leen ko ci seen bopp su ngeen bëggee xam dund ngeen diine wala dund leen diine waaye wa arshadakum ila ma fihi xayrakum wa saadatakum wa hadakum sawa sabil moom sunu borom subhanahu wa taala def ñoo orienté jubal ñu ci mbir yoo xam ne buñ ko defee ci sunu àdduna dañuy am jàmm alaxira buñ demee jubóog moom moom yàlla xoolal tey fi àdduna bi toll ci kaw suuf mooy bandi yi la ñuy aar waaye nit ñu baax ñi kenn aaru leen saa yoo déggee tey ci réew mi ñuy kaas ak di mars ak di ñaxtoo ko wax yëgal ne ay bandi la ñuy aar mais aaruñu nit ñu baax ñi semaine passée xam ngeen ne moment bi ñu toll am na lu xew diggante Gambie ak Sénégal lan moo xew Gambie mooy lenn ci ay reykatu nit ñoom la ñu rey ñoo xam ne dañoo rey ay nit ñu rey leen léegi ñooñu ba ñu reyee nit kenn ñaxtuwul ba ñu reyee ña rey nit ñi nit ñi ñaxtu ana ana dëgg gi dégg ngeen léegi Sénégal ku neex ku mu neex rey guddeeg bëccëg journalu tey bi mujjee génn am na ku ñu rey ba kañ ndax dañuy bàyyi jaamu yàlla yi nii rek ñu leen di toroxal di leen rey soo waxee ñu ne non dañu war a dindi peine de mort ci kaw suuf nañu tëj ba ñu commencé tëj ba léegi tëj bi lan la jëriñ lan la ñu yokkal mooy kuy génn kaso danaan téye leen ma sama place maa ngi ñëw bu waa ji reyee ñu tëj ko juróomi at mu génn reyaat dugaat ñu génnewaat ko mu génn mu ñëwaat reyaat dugaat ba kañ li yàlla wax mooy dëgg wallahi dañuy sonn sunu boroom moo bind moo xam alaa yaalamu man xalaq wa huwa allatifu alxabir waxuñu sax ci lislaam comme xam na ne nit ñi gëmuñu lislaam waaye dañuy wax ci maandute ak dëgg ma ne keroog ba ndaw si tàngalee dawlin bàyyi ba borom këram di nelaw mu xëpp ko ko borom kër gi daw songu duus bi mu xëpp ko la ca des ca ginnaaw lu tax nit ñi kaasuñu léegi jigéen ñi koo waxal mu ut acide mu tàngal ndox wala mu ut dawlin wala mu ut xott butéel wala mu dem jëndi poson koo waxal rek ci jigéen ñi lii lay def lu tax lu tax ana maandute bu fekkee da ngaa nekk ak sa borom kër dem na la loo neexul bëggatuloo ko ñaanal baat nga tas nga jël sa liberté wala nga simmeeku nga jox ko li la lislaam li mu la joxoon sëy bi daa tas loolu la ñuy wax simmeeku mais duñ def loolu dañuy dem jënd acide defal la ko ci laax nga dee wala ñu dëbb butel defal la ko ci fonde nga dee wala ñu tàngal diwlin bàyyi la ba ngay nelaw ñu këpp la ko wala ñu baxal ndox bàyyi la ba këpp la ko fu ñu jëm yàlla nag li mu wax mooy dëgg su fekkee da ngeen a bëri yërmande yàlla moo leen ëpp yërmande parce que yàlla mooy borom jaam yi kenn ci ñun moo moo jaam ñi lu ñuy am am yërmande yàllaa ñu ëpp yërmande ndax yàllaa ñu bind sunu borom subhanahu wa taala moonu moom kon yàlla moomu tëral ci ñun ay doxalin ne lii la ñun bu ñu lànkee ne du loolu dañuy sonn rek ci kaw suuf mooy li am tey ba ci mbënd mi am nii wallahi bàyyeekul ci yàlla ñun ñii sunuy loxo la yàllaa bind jaam ñi bind suuf si moom jaam ñi di wàcce ndox mi ji ko kaw suuf la koy wàcce ba pare nag utal ko yoon nag te ndox mi du fépp lay taade yàlla daf ko utal yoon utal ko fu mu war a jaar fu mu war a dajaloo ñun ñu ñëw sëkk fi yàlla waxoon bu fa kenn dëkk ñu dëkk fa wala yu ñëw fekk yoon yi yàlla waxoon ndox mi fii lay jaar ñu ne yàlla doo nekk kaw asamaan bëgg diriger kaw suuf fii la ñuy dëkk lan moo xew tey avion bu buggee bàyyi kaw ne day dox ci kaw suuf problème rek mooy am parce que sunanullah mooy avion day naaw waaye du dox ci kaw suuf otoraay su ne day daw ci tali wala day naaw mbokk yi du dem dafa am réalité yoo xam ne yàlla moo bind moo xam sunu borom lépp luy njub lépp luy lu baax sunu borom ci loolu la bëgg nu nekk lan moo tax yàlla araamal sàngara parce que day yàq nit day yàq xel di yàq yaram di yàq alal lan moo tax yàlla araamal njaaloo parce que dafay yàq société day dem ba nit ñi dootuñu am askan wu baax kenn dootul xam foo bokk deret yi day jaxasoo day yàqu lan moo tax yàlla araamal sàcc parce que baaxul lan moo tax yàlla araamal fen parce que lépp lu yàlla araamal boo ko déggee nga jàng ko nga càmbar ko da ngay fekk lii wallahi amul amalul xeet wi njëriñ léegi nag suñu bëggee renverser dund bi ñu ne yàlla subhanahu wa taala lu mu wax amul ñun lu ñu wax mooy dëgg moo tax ñu sonn moo tax ñépp sonn yàlla ne guddi mooy guddi bëccëg mooy bëccëg doomu aadama yi ne déedéet su guddee ñun mën nañ koo bëccëgal su bëccëgee mën nañ koo guddil bu tawee mën nañ koo dékku dañuy sonnal sunu bopp yàlla waxoon na ci hadisul kursi ne yaa abd anta turid wa ana urid fa in aataytani maa urid aataytuka maa turid fa in naazatani fi maa urid atbaatuka wala yakunu baada dalika illa maa urid sunu borom nee na yéen jaam ñi yéen yéenay sama jaam maay seen borom su ngeen ma defalee li ma bëgg ma yombalal leen lépp defal leen li ngeen bëgg su ngeen xëccoog man man yàlla li ma bëgg ma sonal leen ba seen baqatay na bàcc te mbir mi du mujj lu dul man yàlla li ma bëgg mooy am allahu akbar yàlla li mu bëgg rek mooy am dañuy sonn rek li yàlla wax mooy dëgg mooy ku jadd nañ la teg yoon mais maandu ci amul tey premier ministre wala président de la république su ko benn waay bëggoon rey buñ ko jàppee nun koy def ku nekk fi nga toog tontul sa xel ak sa xol ma ni pre- président de la république ku ko bëggoon assassiné suñ la jàppee nan la lay def ku nekk fi nga toog da nga naan dañ koy rey alaysa kazalik ku bëggoon rey tey Mouhamadul Mansour Sy ta xalif général Tijane suñ la jàppee nun lay def tontu bi ku nekk fi nga toog da nga naan dañ lay rey ku bëggoon rey tey alxaliful amali taifil muridiya ah suñ ku ko bëggoon rey buñ la jàppee nun lay def dañ lay rey waaye waa ji doxantu fi ak soxnaam waa jee tëdd ci kaw lalam buñ ko fa fekkee rey dañuy jël suuli sànni ne yàlla ko yàlla yërëm sahit na dugg na àjjana ndax dañ koo tooñ loolu kese nit ñi ñoo yem benn atte président ba ci xalif général ba ci yonent ba ci waliyu ba ci muqaddam moo citoyen ba dëkk ca ginnaaw Sénégal ñoom ñëpp a yem ci yàlla ñëpp ay jaam lañ yàllaa leen wàcce ñëpp la yàlla yemale atte bi moo tax yonent bi keroog ba ndaw si sàccee yonent bi ne dañoo war a dagg loxo bi nit ñi dugg ci ruq yi di diisoo naan ndaw si dafa bokk ci famille bu am personnalité kii buñ ko daggee am na lu muy wàññi ci société bi kon dina am lu ñuy gisee l'islam ñu koy ruumandaat di ko ruumandaat ba mu egg ci benn sahaaba mu ne leen yonent bi sama xarit la Zayd la tudd mu ne bàyyi leen ma dem wax ak yonent bi amaana man bu ma demee dinaa convaincre yonent bi ba kenn du dagg loxo ndaw si Zayd ñëw ci kanamu yonent bi naan ko yonent xam nga ndaw si ci famille bi mu bokk xam nga ci yax bu mu bokk xam nga sant bi mu am xam nga maqaama bi mu taxaw ci fameem yonent est ce que du ñaaw tey adduna bi yëpp di dégg ñu naan dagg nañ loxo ndaw si yonent bi bët yi dafa xonq bi Zayd di wax kanam gi changé mel ne asamaan bu xiin yonent bi daal di yuuxu ne addunaa ngi tukki addunaa ngi tukki ndax gaa yaa ngi baare atte yàlla ñi ngi bëgg a baare atte yàlla yonent bi ci saasa la wax Bilaal wooteel te heure julli jotul bilaal woote ñëpp daje ci jàkk ji yonent bi mu ne wallahi bu fatima doomu muhammad sàccoon muhammad dagg loxo bi loolu mooy yemale adduna bi mooy l'islam dafa ñëw pour yemale waaye gis ngeen fii nu nekk yemale amu fi parce que lu tax parce que atte woonu l'islam lu tax atte woonu l'islam mooy ñun jullit yi gëmunu l'islam ñun jullit yi saa yoo déggee ñu ne nañ delluwaat ci l'islam rek même lii ñuy wax nii léegi naan ku rey nañ ko rey ñun gëmuñu ko l'islam taxul ñun ñu am jàmm moo tax waaye nag sunu borom subhaanahu wa taala daf ñuy jàngal ne islam du société boo xam ne buñ ko tabaxee ba pare tabax ay kaso parce que kaso day yokk dépasse kaso day yokk dépasse ci société gouvernement bi mooy dajale alal mooy tabax mooy fay ña tabax mooy ut ay garde ba pare di leen dundal di leen jox ñu lekk di leen jox ñu naan ba pare jël saay-saay si di leen tëj ñuy lekk di naan fay ñu courant jënd ñu benn dund ba pare bu ñu feebaree ñu faj leen loolu société day yokk dépasse waaye gis nga lislaam soo defee dañ lay def nga dem ñibbi da ngaa jam dañ lay yóbbu ci ñu xam diagnostiqué jam-jam bi xam ñaata mètre millimètre la ñu natt ko noonu jam la ko nga dem ñibbi da ngaa dóor ñu dóor la nga luq ñu luq nga dagg ñu dagg yàlla wax na ko as sinnu bi sinn wal aynu bil ayn wal qisasu wal jurux qisas jam ñu fayu soo reyee ñu rey la al xurru bil xurr wal abdu bil abd wal unsa bil unsa jeex na waaye fii da ngay gis ku rey ba pare ñu tëj la deux mois trois mois jëlal la avocat layal la nga daal di génn nekk ci société bi di lambar lambar yi di dox keneen waxaat nga rey ko waaw léegi koo waxal rek arme lay njëkk a uti xaar ma ma ñëw ci oto yi ci daje yi ci place yi toj butéel jël tournevis waaw fu fu xeet bi jëm parce que lan dañoo bàyyi lu yàlla wax yàlla nag li mu wax mooy dëgg wallahi wallahi bu ñu bëggee dund jàmm ci kaw suuf li yàlla wax dong la ñuy def suñ ko deful dañuy sonn adduna sonn alaxira aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان فهل اتبعنا إمامنا واحترمنا نظامه وانفذنا أحكامه وقدسنا كتابه وأهللنا حلاله وحرمنا حرامه إخواني hal ittabana imamana est ce que topp nañ sunu guide ki ñu yàlla ne woon topp leen ko ndax topp nañ ko tey tontu bi mooy déedéet kenn toppul Muhammad ku ne am nga koo topp waaw Sénégal ngay dugg mu nekk société boo xam ne laa ilaha illallah sax dañ koo xaaj laa ilaha illallah kër gu nekk am nga nooy waxee sa façon laa ilaha illallah bu bokkul ak keneen te laa ilaha illallah benn dong la woon alquran benn dong la woon yàlla kenn la yonent bi kenn la xoolal rek korité bi passé ñetti korité moo am benn weer benn boroom benn téere benn xibla ñetti korité est-ce que ñett yëpp dëgg la ñett yëpp dëgg la est-ce que ñett dëgg day nekk ñetti dëgg dëgg benn kese la alxaq waahid dëgg benn kese la mënta nekk ñaar mënta nekk ñett waaye lan moo fi nekk mooy farfarloo ñàkk a topp sariya da ngay wax julit sariya yàlla nee na yonent nee na mu ne la waaye waaye nag man topp ma sariya allahu akbar waaye man topp ma sariya man ñun suñu yoon ci sariya kon la kon lan la ñuy julli lu ñuy doy julli kon lan la ñuy doyee kon koor lu ñuy woore kon li yàlla santaane luñ koy doyeeti bu fekkee sunu yoon ci sharia sama fu ci sharia loolu ngay wax waaw loo looy julleeti ku wax sama fu ci sharia looy doyee lislaam looy doyee ci alquran looy jublatee sa kanam gi penk mbokk yi bu ñuy tontu mooy kenn ci ñun toppatul imam bi muy sayduna muhammad waxtaram naa nizaama est ce que yonent bi li mu indi organisation bi mu fi bàyyi topp nan ko yonent bi bi ko yàlla yónnee dafa am lu mu indi ñëwul ay loxoy kese yàlla da koo yónni jox ko téere mu ñëw jàngale ko téere baa ngi ni kenn mënu ci dara wallahi tubaab yi li ñuy saay saay saay saay mënuñ ci alquran dara ñun kay ñun ñoo jubul ñun ñoo nekkul ci dëgg ñun ñoo jàppul ci dara loolu moo tax ñu mel nii nu mel benn colonialiste dafa dajale ay borom xam-xam ca Algérie mu ne leen dañoo jàng ci alquran benn aaya dañu bëgg a laaj aaya bi jàng ko ci seen kanam ba pare laaj leen ci ay question boroom xam-xam yi ne waa ji jàngal mu ne walillahi l izzatu wali rasulihi walil muminin yàlla nee na dëgg gi tedda nga gi maa ko moom man ak sama yonent ak way gëm yàlla yi mu ne li alquran la gars yi ne ko wallahi alquran la mu ne kon lu tax ñun ñu jóge France ñëw coloniser leen yéen waa Algérie su fekkee yàlla li mu wax dëgg la ñëpp noppi saal bi yëpp noppi benn boroom xam-xam jóg ci ginnaaw jéegu ba yegg ci waa ji fi mu toog mu ne ko wallahi alquran dëgg la yàlla moo ko wax wallahi yéen ñi ay yéeféer ngeen dëgg la wallahi ñun ñii ñun ñoo dul ay jullit ñun ñoo gëmul li yàlla wax moo tax lii am wax na dëgg tey boo xoolee Sénégal dañuy wax quatre-vingt-quinze pour cent musulman quatre-vingt-quinze pour cent la ñuy wax mais boo leen ne kaay leen ci li yàlla wax alquran ñu ne la waaye waaye nag waaye nag ndeysaan waaye nag kaay leen ci li yàlla wax ñu ne waaye nag ah c'est que lii nag dafa xaw a métti xam nga nag vraiment l'islam kenn mënu ko dund kon lu ko yàlla doon wàcce lu ko yàlla doon wàcce bu fekkee mënuñu ko dund lan la ko yàlla doon doyee te ay nit di ko dund tey ci kaw suuf ay nit Guinée Guinée nee nañ Sékou Touré accident yi dafa bëri Sékou Touré daa dajale chauffeur yi ne leen ku accidenté wul année bi ba mu jeex ba takkal la garaat année bi ba mu jeex kenn accidenté wul mu ne leen yéen a ko tey ku fereeti nit ñu rey la ah nekk ñi rey nit ñi ñoo ko tey wallahi bu ñu yóbboon ñaari nit stade amitié jël jaasi dagg seen baat kenn dootul laal kenn waaye déedéet da lay rey nit ñi jëlal ay avocat waaw naan légitime de défense légitime de défense ah koo xam ne rey na fukki nit wala rey na juróom-ñaar fukki nit su ngeen demee ci kaso yi fekk fa ku rey téeméeri nit mu ngi fa toog ba kañ li yàlla wax mooy dëgg lu nu am yërmande am yërmande yàlla moo nu ëpp yërmande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa séen kuy nàmpal mu ne sahaaba yi xool leen ndaw si ñu xool ko mu ne tey ku bëggoon jël doom ji sànni ci safara ndax dina la bàyyeeg moom ñu ne ko mukk mu ne yàlla moo ko gën a yërëm doom ji ndax yàlla moo ko may ñun ñii ñëpp yàlla moo nu yërëm moo tax mu def ñu ay nit yàlla mu doon def ay rabu àll kon yàlla moo nu yërëm kan ci ñun moo bind yàlla benn message wala bu def demande na ko def ma nit kan ci ñun yàlla moo la bëgg def la nit boole la ci ngën gi xeet kuntum xayra umma kon yàlla moo nu moo nu bëgg suñu bëggee am jàmm àdduna am jàmm àllaaxira wallahi li yàlla wax la ñuy topp ñu noppalu inil hukmu illa lillah atte justice yàlla rek moo ko moom beneen justice bu ñu fi teg ay caaxaan la dañuy nax rek dara du ci dëgg chaque jour ñu changé loi yi loi bu leen arrangé ñu teg bu leen arrangé wul ñu teg ko fële peine de mort ñu ko fi dindi xam nañ ne kenn du leen rey waaye xoolal ni ñuy reyee nit ñi tey ci banlieue bi ndaw si dégg ngeen barki démb seete woo la jóge seeti yaayam wàcc arekaar ñu jam ko mu dee yaay ji dégg ko dee xoolal ñaari nit dee à cause de lan keroog waa ji la doon doxantoog jabaram ñu rey ko jabar ji leen woo naan leen bu leen ma fi bàyyi kee keroog jëkkëram tëdd di nelaw mu tàngal diwlin sotti ko ba kañ ñun nag nanu toog mel nii rek nan toog mel nii rek lu yàlla wax kenn du ci sawar waaye ay caaxaan bu jógee ñëpp jóg ay caaxaan bu jógee ñëpp jóg loolu nag li muy jur mooy dañuy sonn waaye duñ am jàmm bu mbëndee tey suba yàlla indi leneen ginnaaw suba yàlla indi leneen ginnaaw suba yàlla indi leneen parce que nattu yi ci loxo yàlla la nekk te yàlla nee na nattu yi du ma ko arrêté lu dul jaamu yàlla yu ñëw ci man rek wala nabluwannakum la wax bi shay'in min al xawf wal juu wa naqsin min al amwali wal anfus wa samarat su ngeen réglé li yàlla nee na ma indi leen bu ñu réglé mbënd mi ba mu pare yàlla indi njéeréer yi bu ñu réglé njéeréer yi yàlla indi géej gi bu ñu réglé li yàlla indi leneen parce que yàlla moom moom adduna bi adduna bi kenn moomu ko ku dul yàlla loolu na leer ci sunu bopp ñu tuub sunuy bàkkaar dellu ci sunu borom ñu ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu defal nu tawfiq adduna ak tawfiqul alaxira allahuma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt wala tuazibna bada al mawt bi rahmatika ya arhama arrahimin allahuma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك ان تردنا على دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله